Leewtoo TV pël bu rafet mu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm di leen jaajëf seet si le grand champion ndaanaan muy Calme ñu gën ko xam ci grand Mbagnick mu nekk xale boo xamante ne wax dëgg neex yàlla dafa pourvu su làmb marqué empreinte tey ba ñëpp ràññee ko kenn du ko présenté dañ naan ko nuyoo wax àdduna fan si ak soppe ak ñi nga xamante ne ñoo lay suivre à travers Baol TV Leewtoo TV may ziar Ndeye Mbacke xale bi xew si moom it mu naa leen di ngeen ko ci dégg ndax moom it am na lu mu war ki nga xamante ne mooy Calme Ndour di di la ñaanal jàmm ak Mansour ki nga xamante ne mooy Momo sama xarit sama lonko sama classe sa jàmm yàgg Momo kenn maa leen nuyu di la ziar. waaw baal ak si weeru koor bi leen baalu ak di nuyu sama xarit Momo. Hmm. ñoom Bukar xam di la nuyu tamit di nuyu Mansour. ak sa caméraman bi maa ngi nuyu bu baax <coughs> di nuyu sama xarit Ibrahima ak ñoom Jackson Mass sama rak ñoom Ndey Joor ñoom Nabou Ngom xam sama fan si club yëpp maa ngi nuyu bu baax ñoom Babacar ñoom Grand Latir Baba As xam nga ñu fi ñëw taw ak ñu ñëwul ñëpp ñoom Koudia Ndour ñoom Tata Tani yëpp maa ngi nuyu bu baax waaw di nuyu nag fi ma fekk nii sama mag bi Dieye di nuyu jabaram jëkkëram tamit mm, malik maa ngi koy nuyu bu baax parce que nit ku baax la. di nuyu tamit euh, waa kër Cheikh na Cheikh Sadou bu baax di nuyu sama papa di ñaanal sama yaay yàlla na ko yàlla xare ajjana di nuyu mbëpp mboolem jullit yëpp ak tarixa yi murit tijaan laayee mit bàyyi ma fépp fu moom fu jullit mën a nekk rek maa ngi koy nuyu ak chrétien yëpp maa ngi nuyu bu baax. Euh, koor gi ak Calme Ndour koy gérer. waaw ñu ngi woor ñu woor comme ni ñu koy defee saasu ne comme ay jullit lañu. bokk si umma Seydina Muhammad rek comme bu yàlla tegee lii rek comme nañ koy teg si yoon di woor waaw comme niñ koy defee saa su ne di woor di julli comme sans force dañuy julli comme ay julli lañu dañ koy defee noonu waaw. bi nekk ci weeru koor mu nekk weer boo xam ne yàlla moo ko digle jagleel ko jàmm euh, tey nan ngay pratiquer entraînement yi ak koor gi da woor di entraîner wala boo doggee pare ngay dem entraîner. waaw comme. dañuy entraîné wu saa su ne comme boo doon def dix da ngay def set rek waaw di wàññi say séance d' entraînement waaw mais bàyyoondikul benn côté chaque jour ñuy dem entraînement matin soir waaw. léegi dañu ñëw laal tuuti ci carrière bi nee naa leen ñun ay nitu làmb lañ du mun a ñàkk carrière Calbou Ndour boo may wax carrière loo may wax ndax tey ñaata combat ñaata victoire ñaata défaite. waaw ñun moom dañoo judd rek nekk ay sambion di bëre si mbapat yi. nekk su suñu dëkk dëkk yi nekk dëkk yoo xamante ne ay dëkku làmb lañu ku fa juddoo tamit boo fooyewul bëre tamit am na am na say maam yoo xamante ne jaar nañ si làmb am na say nijaay yoo xamante ne jaar na suñu làmb <coughs> surtout ma waaw muy Mar Fafa ko maa ngi nuyu bu baax waa Mar di nuyu ñoom Ousmane Kadi bàyyiwuma kenn waaw ñoom Koreas xam nga ñu fa grand sama grand frère yëpp mënuma compter lépp mais maa ngi nuyu bu baax jaarale ko si Ousmane mais suñu dëkk yooyu dafa nekk dëkk yoo xamante ne. bu ñu bu nekkee xale dañuy fowantu làmb wala football wala leneen ak leneen mais jamono ji ku fa judd rek ay làmb ngay fowantu waaw ba yàlla dogal ñuy bëre mbapat di bëre mbapat di pourve di pourve ba yàlla dogal ma ñu sens yu bëre arène waaw ba ak ñaata mbapat man moom xam rek mënuma wax sa li ma li ma jël si làmb mbapat mais xëy na yàlla moo mooy def rek mais ñu dem ba agsi fii si arène bi rek mais ñun moom lu ñuy jël si mbapat moom bu ñu nekkee fi di ko lim du jeex waaw. kan nga ñaata combat man am naa huit combat huit victoire. huit combat huit victoire. waaw kan mu déggagul mu ñor. non non te incha allah ko dégg. <laughs> day wàkke yaa ko dégg nee naa la sax boo ko sentiree rek siifal nga ñëw wala nga dama pël ma bàyyi la nga dugg ah euh, ñu dugg ci li nga xamante ne mooy sa combat sa wàccay combat mais balaa boobu rek may wax ni nga sañsee nii nan la ndax def sa dara bu jot def sa laxasaay bu baax lan la sañse bi lu ko waral looy waajal. waaw ñun moom xam ku ñu xam moom xam na ñun ay xaadir lañu waa kër Cheikh na Cheikh Sadou lañu maa ngi leen nuyu bu baax di nuyu suñu xalifa bi Cheikh Aya bu Cheikh Talibou ya doomu Cheikh na Cheikh Sadou di nuyu sama sëriñ Cheikh Sidi Khayri du Cheikh Bounana doomu Cheikh doomu Cheikh na Cheikh Sadou ak Chérif Aliou Wali aussi. doomu Cheikh bu naan doomu Cheikh Talibou ya doomu Cheikh na Cheikh Saad Bou ndax ñooñ moo samay buntu Cheikh na Cheikh Saad Bou <clears throat> kon nii boo gisee ma def nii rek xam nga dañuy waajal nimsaat bi si ñaanal ñëpp jàmm ñu dem ak jàmm ñëw ak jàmm xam nga comme loo xamante ne bëggoon nañ koy ati at daaw bëggoon nañ ko mais mbas bi moo tax demuñu nimsaat mais ren euh, yàlla ak Cheikh ayaat def na lépp gouvernement Mauritanie ak Sénégal yëpp ba ñu waxtaan ba ne yoon bi dinañ ko yombal incha allah waaw loolu tax ñu koy waaj. am na loo xam ne faaw ñu leeral ko en lay mbàkke muy 4 avance yi fi xew 3 avancé ak 2 avancé promoteur yaa ngi lay contacter si avance yooyu wala ba tey yow dégg rek nga ci am comme waaw am na ci promoteur yu ma si contacté sax yu bëri mais xam nga rek man moom dama joxe sama kàddu ba pare quoi ma joxe sama kàddu moo tax mënuma jël benn avance. sa dama xas a joxe sama kàddu ba pare dama signé promoteur bi ay 3 combats yoo xamante ne su ma jógee si combat yi daf may joxaat beneen combat moo tax mënatuma engagé beneen adversaire dañ laa tënk maanaam. voilà dañ ma tënk waaw. léegi nag ñu ñëw ñu ñëw. Calme Ndour maa ngi leen nuyu di nuyu ñuy suivre ci Bawol TV ak Leewtoo TV ci trois avance bi est-ce que xam nga sa prochain adversaire yi. man non proposé na mes adversaires yu bari mais bëgguma ko wax fii ko ba ngeen baal ma si quoi mais xam ne rek xam nga rek dama gàntu promoteur bi te bëgguma turu mbër yooyu fii. non dara parce que am na benn mbër boo xam ne sax am na si am na si combat sax am na si combat. da ngeen ko ñu waajal. non man man man maa maay wax ne man promoteur bu ma bëgg a si na seeti mbër bi ba pare bi ay mbokkam d'accord xool combat ba jeeg ma sa diggante ak nga delloo yow yaa delloo avance léegi da xool affaire yi ñu ne la baaxul wala nu demee ba nga delloo te yow yaa ne yaay xool pour wax promoteur bi na dem dox loolu nag na leer na fu mu toll non man sama diggante Mangel Dione mënu ma wax du bëri parce que wax naa si wax naa si waxaat naa dëgg la man xam nga du ma fen man avance bi maa ko delloo mais dama xam ne sama combat man ak moom yóbbu ma fenn comprendre su ma ko daanee tey daf may gën a dugal si kàmb bi rek comprendre su ma ko da su ma daanee tamit yóbbu ma fenn lu dul def may arrière la moo tax xamal ma xam ne sama buntu làmb du si moom voilà man de mun naa bañ a d'accord loolu peut-être nag ñi lay seetaan mën nañ ko d'accord ndax bu fekkee dafa promoteur bi dafa wax a yow wax ak moom nga d'accord ba encaissé avance delloowaat ko kon dañuy ne da xool affaire yi ñu ne la baaxul ba tax nga delloo ko loolu ngay d'accord ñu avancer ci leneen. mais du ma d'accord xam nga wax comme comme comme yow. par exemple sa patron moo tegoon combat bi te mu am na yenn yoo xam ne bëgguma koo ah, wax si télé waaw xam nga yenn yoo xam ne bëgguma koo wax si télé comprendre comme topp nga ma si toppaat ma si ban dinaa toj yax bi nag affaire bi leer kon mu xam ne moom moo nekk si erreur sa patron moo nekk si erreur kon <laughs> eh damaa bëgg nga wax <laughs> amoo fi loo fi lay de waxal ama Assane sama booy la bàyyi ma suturaat ko rek. Ah, waaw kon ñu leneen te su ma waxee bi day am problème rek. day xëy fii woo ma fii di ma napp ay plainte mooy loolu. kon bàyyi <laughs> naa mu jëm fu mu xam jëm. la ma fii di ma naan ay porte plainte ma ne ko journée la mënu ma nelaw. billaay walaay dem naa place am woo ko mu ne ma nekkuma fii da lay waaw da ma doon tooñ waaw après ma woo ko woo sama garaay ñu woo ko mu ne bàyyi na plainte bi ma damaa demoon village sax wala ma ñëw si. ndax plainte bi. waaw si sa combat ak ki nga xamante ne mooy Eumeu si ñëw. nga ñëw bëre di prouver muy bëre mu nekk ndaanaan nag gars yi dafa diis ci yow nga oyofal ko loolu léegi yëpp bi nga yëpp Eumeu Sène si ñëw da ko yàgg a suivre wala instant bi da nga xam sara xam nga xam li koy daan ba tax fu mu toll nii danga mel ni daal comme buñ la ne woon suba suba sax lan la. waaw combat bi moom oyofalu ma ko sax mais man noonu laa mel de nature xëy na fii xëy na ñu ma xam léegi sax léegi lañ ma xam mais keene Jacky borom mayo Sénégal bale kooku bi depuis bi may commencé bëre mbapat poussière ba bi may bëre poids lourd ma moom moom laa gën a xam ne sax moo kii moo mën a wax dara si sama carrière mm-hmm. parce que am na jamono ju boo xamante ne am naa 27 nag mbapat si benn saison 2017 2017 2018 am naa 27 nag. maa ngi moom kese ñoo doon ànd. ci benn saison deuxième année bi deux mille dix huit deux mille dix neuf ci la am dix neuf nag xawma dix huit. waaw waaw vingt quatre waaw. ñu ngi village comme li ma la mën a wax sama carrière si loolu comme nekkul ma xeeb Eumeu seen junior man dama dajeek ay ndaanaan yoo xamante ne comme ay moromam lañ ni moom lañ toll di bëree mbapat may mbëkkante moom ñoom si àll bi. kon moo tax ma ne la Eumeu Sène Junior combat bi gars yi ñoo ko diisal mais man dama jàpp ne comme man faxas jàll la quoi comme leneen xooli leneen. parce que mosuma am combat ñu jox ma favori. parce que bi may bëree njaaytin tey njaaytin bi may jël avance am fii dans une semaine la woon ma nekk village. ma nekk village ñu woo écrit bu écrit bu nekk avance am dugg na foofu. bare ba ñu woo ma waxu ma ne am na benn avance bu nekk suñu écrit rakku tafaatin bi boobu xaw ma ko sax damay dégg ne turam rek. ndax bëgg na boobu dama bëgg dama bëgg a bëri quoi dama bëgg a bëri ma ne leen jox leen ma ko dama jël combat bi rek comme gars yi ni ñu wax si Eumeu Sène Junior li nga def waroo jël lii boo ñaa moo ma ne jëlal combat bi boo ñaa moo ma ne jëlal combat bi ma jël ko génn si bii tamit pareil moo tax ma ne combat bi nekkul combat boo xam ne diis na si nit ñi quoi mais man diisul si man quoi diisul si man Eumeu Sène daan la wala nga daan ko yow fan la lay yóbbu non Eumeu Sène Junior moom daanu daan moom du ma ko def mais xam naa su ma ko daanee moom fi ma teg sama bët moom xam naa ko te man incha allah dama koy wax man fi ma teg sama bët di so Eumeu Sène Junior am na feneen fu ma doon séntu sax di Eumeu Sène Junior mais xëy na comme li ñuy wax rek ñun comme dañoo jóge àll ba wayal yaan si comme tey pour pour gars yi gën ñoo gën ñoo jàppale bu nekkoon fii lañ juddoo wala fii lañ yaroo Ndakaaru lañ juddoo yaroo fi màggee fi si lay lépp gën a yomb comme ñun fee lañ dëkk parce que bari nañ <clears throat> ay avance yoo xam ngay dugg si benn écrit ñu ne kii bu ko jël séeréer la wala nii ak nii mboru mbapat la bu ko jël te loolu dafa war a jeex si lamb ji comprendre ñu ñëpp ay xale lañu nekk ay naataangoo comprendre na ji jaay jaay suñ doole xam nga jóge si dëkk ñëw di waali si waali yaan si kon bu ñu ñëwee fii waru waruma am momo par exemple tey kii di naan momo bu ko jël kii mboru mbapat la mooy différence bi gars yi ñoo ko utal différence mais amul benn différence parce que mboru ñoom lu ñuy am mboru arène yi duñ ko am parce que ku dem ba yeew ay ay gerte si jële ko si lutte simple kon kooku amatul lu muy lu muy rëccu si làmb kon booy ñi ñi nekk si arène bi di xaar ber benn avance quatre cent mille tey nga lekk quatre cent mille si weer bi bëri balaa ngay bëri waat déwén ñoo ñoo ñooñu la ñu war a comparer mu ne gars yi loolu la ñu war a bàyyi ay lutte simple ay non du question waa simb bu ñu ñëpp a foro parce que ñoom tamit ñu ngi si aram bi mais kenn terewu leen ñu mbapati bu leen neexee ñu génn ñoom rek rek a ngi nii fii lañ dëkk fii lañ juddoo mais dañuy wàcc si àll bi di mbapat ba yàlla am nu mu leen di may ñoom général Malika mais gars yi toog fii naa ay kii mbaru mbaba la bu ko jël bu ko jël gars yi ñun ñëpp ay doomu aadama lañu nekk ay xale tamit kon nañu bàyyi ñu mbokkante bëre waaw. Calme <coughs> Ndour. Mhm. ngay bëre ki nga xam ne mooy Eumeu Sène junior ku xam Eumeu Sène junior xam ne mbër bu coriace la. Mhm. bu duggee ci géew day xeex bañ ne lii lan la te ñi xam la yow kan mu nduur ci lutte simple ku la xam-xam ne lutte sans frappe moom mën naa rek bokk nga ci ñun man est que yaa ngi entraîné li nga xam ne mooy boxe li nga xam ne mooy sa bopp jour boobu. Mhm. waaw man moom euh, bëri dóor moom man lépp laa yóbbu damay bëri di dóor parce que sama combat yi xanaa sama combat ma ak Pape Yekini sax te loolu maa ko waxoon signature bi maa ko ne woon man dinaa bëri la bëri yow daal la te sama coup du la dal. te moom laa ko defee bu yeboo sax mu may yéen ay cours fii du ma ko laal parce que naaw man daa am lu ma la rusee sama loxo rus naa tey jàkkaarloo ko yow nga nekk magam jëm may raag yow dama lay woon ne man la daa ko bëre fuuf jàpp la daan ñaata mbër laa fi kaw am naa trois kaw si aram bi kon tey gars yi kuy toog di naan ay kalmandoo munul kii munul kii man lu taxoon may retard sama combat loolu rek la woon <coughs> loolu rek la woon kii dafa mën a bëre dafa mën a xeex ma bàyyi loolu yëpp changé kon boo bàyyi liy changé tamit ñu waxaat leneen tamit mooy loolu. day doy waar mais tamit mën nañ xam ñaata grand combat la kan la. non man moom sama premier combat grand combat ma papier gi la waaw yu des ay spécial la woon. Euh, na ko max crazy euh, jour euh, kii nu mu tudd fils de balle ak mboru kii bi bool bi Tavaleer man maa bëri spécial bi waaw. ak bii di ñëw moo nekkaat deuxième grand combat. waaw ak bii di bii di ñëw nii waaw. lan lañ mën a xaar ci yow jour boobu sa diggante ak Eumeu Sène Junior lan nga mën a teg ci loxo fans ak sénégalais yi nga xamante ne tey ñu ngi xaar bis boobu nga wax ñu tamit date bi kañ la. waaw date bi le 25 la. le juillet la dañ koy yow même fans yi moom xam nañ ma xëy na ku ñëw tey ñun bañ dama laa bëgg dama laa supporté kooku moo mën a toog di ñaxtu. mais ñi ñi ñi may àndal. bu ma duggee si géew bi xam nañ kii lu mu andi xam nañ kii ban genre bëre la war a bëre comprendre monsieur Dior li ma koy dénk daal na xaar prix dib bi rek parce que sama waa dëkk fu ñu jógee dafa sori taru ma fii lewetoo fii jëmale suba non non. moom da loo koy rusee moom. non man aw lu ma koy rusee comme ni mu koy waxee rek nee na man daf may woon ne man mënu ma xeex mënu ma bëri. da ngay waaw da may jàngal man nag balaa may jàngal mu ne ko toogal fii nga xaar ma da xaar. waaw ah, moom da nga koy ut foo koy tooglu. waaw mu koy analyser moom prix dib bi rek. maanaam moom day xaar ba voilà moom lay def man moom prix dib bi rek ni ma koy waxee bu mu ko fàtte waaw. lan lañ la wax bi ngay jël Eumeu Sène si ñoom say mbokk luñ la wax. yàlla xam ne mosuñ ma wax dara combat bi man fàtte woon man wax naa leen man kii lañ ma doon jox euh, kii nii mbër bi dëkk Kër Massar. mbër bi kii. tur bi lay fàtte kooku lañ ma doon jox mais <clears throat> dama fàtte tur bi quoi non du Jokkel dëkkul Kër Massar origine quoi mais ay côté yëmbal yooyu ay buum foofu la dëkk quoi mais euh, Mbaye Gueye junior Mbaye Gueye junior lañ ma doon jox mais Eumeu Sène junior jour bi ma war a defi face à face lañ ma envoyé track bi nii ne yàgg kii kii accepté na combat parce que Eumeu Sène junior daa bañoon ñu may doxal limousine diggante limousine ak Mbaye Gueye junior mais mu mujjante bi laa dégg ne bu ñu waree def face à face bi suba lañ ma wone Mbaye Guèye Junior daa bañ kii dafa bañ limousine dafa bañ mais Eumeu Sène Junior moo mujj accepté ma ne ko kon jeex na si laa demee noonu face à face boo wax nga ko lii ah. non man <laughs> ay maar ma dem xalaat samay mbokk ñu waxtaan. noonu nga ne gars yi fu laay jaay Dakar wala nga ñam jeexal. jeexal takk kay ragal <laughs> danaa bëgg laaj sa diggante ak a dégg ah. Calme Ndour. keroog si diggante tafatin la woon ak nga xam ne mooy boo ñaani mbir loolu mais gis benn foot bu nekk sa diggante ak Mbaye Tine lan la ne seen problème yi ñaar. moom Mbaye Gouye Gui dafa dof. dafa ñoo gën a dof fuuf lu muy jaay. lu muy jaay fu mu ko ànd ñuy jënd ko. parce que ñun ay doomu aadama lañu comme ni muy ànd ak Tapha Tine ko escorté noonu la ñuy àndee Boy mbëggeel bu mu bëgg Tapha Tine comme mu loolu la bëgg ñu reyante suñu biir rek xam naa ne ñun euh, ñun maanaam moom bu ñu tase si mbedd mu ne ma calme nañu ak nii xam si signature la mën a tase mu may joxoj wala mu yëkkati dara di ma ko xaaj ma koy xool nii di ko xool mais bu ñu tasee man ak moom si pet face à face nii du ma ne mbañ simi sa dàll bi su ma ko newul toogal fi du toog du ñemee toog mais mbañ li xew a xew yow da ngay protéger ki nga xam te ne mooy Boy Niang numéro 2 moom tamit protéger ki xam te ne mooy Tapha mais bu ko protéger tamit na si ànd ànd discipline comprendre ñun demoon nañ Tapha Tine gisoo musib sañoo Zambala demoon na gisoo mu soupçonné Zambala keneen ak keneen demoon na gisoo mu soupçonné kenn bu demee tey ba ba ba waa Boña di ko soupçonné comme am na yenn yoo xam ne def na ko te loolu jaru ko Boña ak ba tafaat yi ñoo signé contrat ñoom la ñu war a bàyyi ñu jëflante mais quant à ay leneen ak njaaytin fa la new gisoo ko mu def benn affaire effet boo xamante ne def na ko ak ñeneen affaire bi discipline la waaw discipline doomu aadama yar bi ñu la yaree si buntu kër rek boo demee si biir mbooloo da nga koy wone foofu waaw léegi ñu ñëw ci combat Tapha Tine Boy Niang lan lañ mën a xaar parce que booy xool dafa mel ni dafaatin la ñëpp tey jii nii lan lañ mën a xaar ci Boy Niang bi nga xamante moom ngay entraînement bi yaa ngi gis état de forme yaa ngi gis taay yaa ngi gis lépp est-ce que mën na dara ci ki nga xamante mooy dafaatin moom kooku maa ngi koy nuyu au di nuyu suñu waa écrit yëpp di nuyu papam Dogol suñu sama papa bu baax di nuyu Xës père Maysa waa écrit bi maa ngi nuyu ñoom Zambla ñoom ordinateur xam waaw tey Boy Niang man ragalu su ragalu si moom dara parce que man xam naa ko tey man Tapha Tine sa laa gën a ragal ne Boy Niang parce que Tapha Tine xaw ma ko xaw ma lu muy bëre mais Boy Niang man xam naa lu muy bëre. su xeexee looloo koy gën a arrangé parce que man moom day bëre day xeex bu ñu jàppantee am naa si pleine confiance yi ñu daan Tapha Tine. mais géant du Baol tamit. kon xam na ne xeexkat la de. déggoo li ma wax la géant du Baol ay nit rek la nit rek la comme nit ñi rek. yàllaa ko may taay may ko jëm champion la nag ñu ngi koy nuyu au passage mais dañuy ñaan yàlla boo ñaa am ndam si kawam. waaw. kon jàpp nga ne dana ci génn facilement vite fait. incha allah loolu kay biti la faral am bawali nag dañoo takku de yëg nga loolu. ba si yow sax si nga seen télé bi sax si la bokk. ñu jóg adversaire bàyyi laa fi plainte waaye s'il te waaye yow tamit damay yàq émission Boy Niang mosul am komba mu jox ko favori mosul am mosul am non bu mun a am si waaw si Garga lañu joxoon favori euh, si Sa Thiès Sa Thiès lañu jox favori si Gouye Gui pareil ba si Lac de Guiers mu mujjee bëri kon Boy mosul am combat boo xam ne waaw mi waaw miis na loolu te loolu jàmbaar la quoi jàmbaar la waaw. cey loolu Ndeye Mate ñëwoon. waaye nag Kalma Ndour combat yooyu ak bii nii duñu benn ndax jàpp nañ ne combat bi bu fekkoon arène bi bag la bii nag mooy defe moom pour mu daal jàll ci li mooy couronne roi des arènes kon combat bu ko yebee. bon ñaata ñu koy yebee moom xam na bu doy te mu ngi koy def concentration ak récupération te mu ngi koy def te moom moom combat bi sax moo ko gën a bëgg parce que ku dem ba jël engagé wu deux contrat kon am na loo xamante ne yaa ngi koy bàyyi xel.